yaa ngeen yëf ci seen ànd ak 7TV mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës euh, bokk na ci euh, jullit tabaski bi nga xamante ni ñu ci jullitu Sénégal yi danañ koy euh, màggale ni ki tey ji ñu ni daal amat na ab ren boobu julli ci ab féewaloo dinañ dem ca mosquée imam Rawane Mbaye bu Mermoz foofu nga xamante ni imaam El Hadj Abdoulaye Tall ñax ne taalibe yi ci lu jëm ci yornu askan bi mu dem itam ca daara ju kaw ji di université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru foofu nga xamante ni imaam ba daal dinay addu uh, ci uh, jéego nga xamante ni nguur bu bees gi uh, teg nañ ko loolu di ngeen ko teewlu garage boo naree yu bëri kon di naqarlu daal di doxalee nga xamante ni yokk dara dina fa wàcc ñu ne nag moom El Malick Ndiaye war soppeeku foo ki tamit am oto lu jafe la ci ñoom. ñu wax nga xamante ne dañ koo xewal léegi ci biir ndakaaru ak yeneeni gox ci biir réew mi mu di yëg sa moto dem jël alalu jàmbur mu ne nag loolee kon ay xeetu ñaawteef la ñu xewal ñii di yëg moto jakarta yi ñu leen di dawal ñoom nga xamante ni ñoom la baaraamu tuuma di ci jooytu seeni naqar wakil yi moo gën a fës seen skis yi ànd ak yéen ci yaatal gi imaama El Hadj Abdoulaye Tall moom jiite ni ki tey ci suba julli gi ci euh, jumaa imaama Hawa Ndaw bu moom nag dellu si na ci solos ñu màggal tey mu di tabaski dellu si itam ci ñu war yore alalu réew mi ci jamono joo xamante ni kon Sénégal a na ut pétrole ñu teewlu ci ay leexala ci ëllëgu Arafat eh, bile juma imaam Rawane Mbaye eh, nit ñu bari ñoo fa daal di ñëw ñu nekk ay téeméeri téeméer ñu daal di eh, màggal bésu tabaski bi imaam bi nag ci xutbaam mu daal di ñëwaat ci solos bës bi. nekk ak jaamu yàlla goo xam ne sunna la mu akkat maanaa nekkul farata waaye ku am te mën ko jaamu yàlla la gu rëy rëy rëy ci yow te yaaba ju mag a mag nga ci amee waaye nag nga teg ko ci yéene ju sell te yàlla rek tax te importance bi xutba bi doon wax tamit mi ngi ciy wax naan Seydina Muhammad doon na wax ne yéen ci seen diggante moytu leen di tooñante. lii di politique itam daal di ciy bokk rawatina nag gestion deniers publics maanaam li nga xamante ni ñëpp ñoo ko bokk ci jamono ji nga xamante ni nag Sénégal moo ngi daal di génne baril pétrole yu njëkk. wax na ci euh, riba ci contexte bi muy waxee. ak gouvernement bi bees bi objectif bi ñu lancé euh, mooy euh, sunu économie réew am na côté boo xam ne cee sooxe woon lool lool lool sunu ay richess lépp ay nit jël nañ ko ak pétrole bi ak gaz bi vraiment Sénégal dëkk boo xam ne tey àdduna wërngël képp ah fii lañ waroon ñëw tey di wut si lu ñu dundee. xanaa politique bi Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam indi na julli ñi noonu lañ ko war a def. digle yi nag ñu bari dogoo nañ ne dinañ wàccoog moom. imaam li mu wax li déglu nañ ko. te déglu buñ ko déglu déglu nañ ko vraiment avec attention enseignement bi yuñ ci jëlee tamit euh, mooy li yàlla wax rek. ni juma imam Rawane Mbaye bu Mermoz ñene nag bu ci mel ni université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ak bu ñaari tali màggal nañ ay el Kabir tey ci gaawo yema fukki fan ak juróom benn ci weerum juin ñi des nag ëllëg incha allah lañ ko daal di màggal. Omar naa ca Daaru ji kaw ja lañu dem di université Cheikh Anta Diop bu Ndakaar foofee nga xamante ni imam bu uh, jumaa ja daal na askan wi ci uh, ñi nga xamante ni kon moom la gouvernement bu Bassirou Diomaye Faye tàmbale nee na nag xelam dal na fi ak ñi xool la cay toftalu moo tàmbalee am nit ñi di ko gis nit ñi am ci yaakaar yàlla bu yaakaar tas waaye comme ci démocratie lañ nekk dañ ko war a contrôler nekkuñu foo xam ne lislaam moo fay àtte waaye démocratie moo fi nekk kon ñi nga xamante ne ñoom ñooy njiit yi am nañ ci ñoom contrôle ci li nga xamante ne moom la ñuy def bu baaxee ñu ne baax na bu fekkente ne baaxul ñu ne baaxul en toute responsabilité ci ay jamono am na ay qaadi yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkoon mooy ay juge yoo xam ne ci lislaam la ñuy àtte ñooñu kenn déggatu leen ci wàllu fas sëy ci wàllu tas sëy ci wàllu miraas ci wàllu leneen loolu jullit bi daf kaa war a dund jullit bi da kaa soxla loolu nag jullit ñi war nañ kaa réclamer ba tey ci ay xibaar ñu wax eh, ci dogal nga xamante ni njiitu réew mi jël na ko di Bassirou Diomaye Faye may na lu toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak euh, juróom-benn doomu aadama ñoo xam ne caabi da leen féete woon ginnaaw euh, ñu daal na leen mu ko xamante ni ko jël ngir daal ci seeni njaboot. ñu dem euh, ca Thiès ca marché bi nga xamante ni kon fa la ñuy jaayee xar mu nekk. jaay mu ci euh, jaaykatu xar yi ndax nag euh, gis client lu jafe la ci ñoom client yi ñoom seen bopp ne daal ak ah, xar dafa cher lool ñu teelu ci reportage boobu Binta Traoré. ay waxtu rek ngir ñu màggal feetu tabaski fii ci mim réew borom kër yu bëri am nañu jafe-jafe ngir jënd xar ndax njëg ju seer. fii ci daralu sand course bu Thiès ngir am xar bu baax ñaar fukki junni ak lu tegal nga mën a génnee ngir am loo mën a feetoo mu doon lu ub bopp père de famille. te yàlla def na xar am na aussi ndax doo dikkee doo xoolee daral bi lu fi nekk ci xar di nga xam ne xar yi moom am na mais wax dëgg yàlla seer na par rapport ak nit ñi fi jamono ji toll doo dikkee fii xar bi gën a ndaw yi gën a ndaw dañu lay wax naan la ay xaru 100000 parce que 100000 bokk na ci xar yi fi gën a ndaw kon nag bu xar demee ba toll foofu kon ku ne xam na ni xar seer na kon nag loolu defe naa ni lu jar a xoolaat la daal. xar bëri na lool ba tax na sàmmkat yi ñoom ñoo ngi ñaan buur gi ñu teel a joxe subvention yi ndax dundal jur gi day doon lu métti lool ci ñoom ba sax jëndkat yi dañ koy mujjee yëg ci njëg bu seer ci xar yi. xam nga veyu ki bu jotee daa ñoo xam dañ fiy ñëw def fi un mois am ñoo xam dañ fiy ñëw def fi quinze jours am ñoo xam ne jaaykat yoo xam ne bala ñoo ñëw dañuy bàyyi ba mu des deux jours ñu soog a ñëw loolu lépp ngir maanaam bañ a frais frais bu metti seen yi par rapport nga ñëw ci dëkk. jóge lu mel ni Jolof wala nga jóge lu mel ni Linguère wala nga lu mel ni Fuuta nga ñëw fii pour jaay si nga teel fee ñëw li nga doon wut si xar mi sax day mujj danga koy dépensé sa bopp ndax say maanaam doo fi ñëwee ci sa poos ngay dundee loolu day dem ba fenn subvention bi nag loolu moo tamit. fee ca Thiès la ñuy des wax uh, ci njëgu ndugg yi daanaka soble beeg pombiteer bi lépp yokk soble bi njëg bi uh, toll na uh, ci juróom-benn fukk jàpp juróom-ñaar fukk ci kilo nga xamante ni ñooy client yi jàpp na daal mbir mi dafa seer lool ndax ci jamono ji lañ teewoo. waaw ah, day njëkk ci prix yi prix yi moom méttiwul méttiwul ji nii mën a wax mooy. pomme de terre moo xaw a cher tuuti mais soble moom vraiment actuellement disponible na ci marché bi. deuxième bi ci mooy prix bi méttiwul yenn métti yi ndax daanaka li ëpp ci marché bi te jii soble bi li muy jar ci sac de 25 bi 6 000 la li gën a seer 6 750 6 750 boo koy xool mooy 270 par kilo détail bi dina dem ba cent 350 affaire yooyu kon yaakaar naa loolu moom wax di yàlla méttiwul ci côté pomme de terre bi moo xaw a cher parce que pomme de terre bi tax mooy benn nit moom moo ko am di ko jaay. ci prix yoo xamante ne day xaw a métti te fi muy jóge tam dafa sori moo tax bu yëgsee ci marché bi day dem ba onze mille onze mille cinq cent léegi nag bu dee mille la mooy nekk euh, quatre cent quatre vingt quelque. ñu dem ci euh, Diourbel foofee nga xam ne ñu ngi it euh, ci wàccaay tabaski bi client yeeg jaaykat yi ñëpp ngi fees dell ci marché bi ñi nga xamante ni nag ñu jënd seen xel dal na bu baax ndax la ñu soxla yëpp fekk nañ ko fa. ay fan yu néew rek des ñu daal di dëgmal tabaski sénégalais yi ñu ci wàccaay si ñeen borom kër yi di concentré wu ngir wutum xarum mu ñu mën a lewatal ci bésu feet bi le ñenn ñi ñoom ña nga ci wër ci marché yi ngir mën a satisfaire seeni soxna ak seenu njaboot ci jouru tabaski bi le ci marché Ndoumbé Diop bu njaareem foofee nag ambiance ba mu ngi au rendez-vous waaye buñu sukkandikoo ci yenn jaaykat yi ñi nga xam ne ñoom ñooy clients yi ba léegi nii li ñu yéex a jënd loole moom mooy xalaatu jaaykatu prêt-à-porter bile. tabaski bi moom jegeen presque mais daanaka boo xoolee marché bi nit ñi ñu ngi ñëw di dem waaye daanaka taxagul jënd bi demee noonu ñun moom Jurbel d'habitude jëndkat yi moom dañuy bàyyee ba dernier moment rek ñu doog a jóg ren aussi contexte bi ñu fekk tamit mel na ni tamit dana xaw a wute ak nam daan demee jaaykat bi itam di jaay dal moom itam lu nu mel lay xamle waaw instant bi de moom daal instant bi doxagul quoi parce que moom dernier moment la daay mais ñu ngi koy waajal ñu ngi koy pare bagage yaa ngi commencé wàcc instant bii nii ñu ngi wàcc bagage ah, ay jama yu rafet sax mais instant bi moom gisaguñ client quoi. ñeetu jaaykatu daal yi ak jaaykatu yu itam ay tatoueur ñoom ñi nga xam ne nag ñu ngi ci wàccaay bu baax a baax teg ci di xaarandi client yi. tatouage moom dafay li ñu ne parce xale yi bu événement jotee ku ci tatouage da ngay mel ni defoo dara bon préparation nañu ci préparation tabaski Diourbel moom pour ñu pour événement bi teel a déroulé il faut ñu dem ba sëg ci ci jouru tabaski mu soog a déroulé yenn déroulé yi mais nag pour le moment ñu ngi fortaatu benn par benn macha allah. malgré situation bi yëpp ñoom commerçant yeeg tatoueur yi ñoom am nañu yaakaar bu baax a baax gis ñii di clients yi laata bésu tabaski bi la. ba ñuy dellu si Ndakaaru dugg garage bu maraîcher foofu nga xamante ni chauffeur si dañoo mer ba futtu jëmale ko ci jëwriñ gi ñu dénk dem bekk dikk bi ginnaaw ba mu fa wàccee doon lijjanti loo jëm ci pass yi ñu yokk nee nañ nag warul woon doxalee noonu client yi dafa mel ni ñoom ci gën a sonn ndax gis woto dugg sax jafe-jafe la ci ñoom ñu teewlu ci ma tax Ba. dem bi nga xam ne ministre bi ñu dénk wàllum transport dem na ko ci gàdde boo maraîcher amul effet bi nga xam ne moom lañ doon xaar. li mu jur mooy ay xuloo ci diggante chauffeur ak client ba yenn saay sax takk der yi ñoom ñooy daal di intervenir. situation bi nag di gën a compliqué ci ñi nga xam ne ñoo di clients yi ñoom nag dinañu faral di xaar ay waxtu laata ñoo am oto bu leen yóbbu. par rapport passe Kaolack moom ñun luñ ci taamoon 3000 ab sans événement mais événement bi au moins 4000 ñu def ko 4000 mais actuellement moo ngi ci 5000. jéem nañoo wàññante ak ñoom ba sonn mais gars yi nanguñ mais xam naa dañuy xaar kii rek dem di kii. ñoom ñu jàpp nag ne mesure bi dafa waroon ànd ak suivi bu am solo. gis nañ li muy def mais nay am ay suivi comprendre bu ko tegee na koy teg muy am ay suivi gars yi di ñëw di topp ay affaire ñu am ay éléments yoo xam ne dañ koy dox mais amul benn élément bu fi nekk tey fii amul benn boo xam ne nekk na fi yokku seen paas def nañ leen neex. ndogal bi nga xam ne El Hadj Malick jël na ko jur na meru ñenn ci ay chauffeur ñoom ñu gis ni nag mesure bi dafa sévère loolu. événement la chauffeur bi am. bu neexul événement client yi lu leen neex la ñu oto yi xam nga ni yow diggante Kaolack Dakar client bu taxee ne chauffeur bi 1000 francs wala 2000 francs c'est pas normal koo xam ni waa secteur bi ñoo la sonn ci yow nag ku ci mel na man man damaa xeex bañ taf ma nervi elmaane damaa bëgg mu teel a xam ne ñun du ay ennemi ñoom chauffeur yi li ñu jàpp mooy ndogal bi dara wunduwu ko lu dul bëgg néewala li nga xam ni moo di secteur u transport mais ko fi moo fi njëkk jël chauffeur yi si jaboti leen jabolisi chauffeur si client yi client boo wanee nii mu génnee euh, communiqué bi mais boo boo demee ba ba nit ñi ragal du chauffeur si ragal dugg garage di yem ci àll bi di yem di delluwaat c'est parce que communication bi ñu def moo tax kenn ñëmatu dugg ci garage bi ci beneen fànn yi am na ay chauffeur yoo xam ni ñu ngi rafetlu bu baax ndogal bi te di woo seen moroom ñu jëfee ko ngir mën a yombal transport client yi loolu moom rafetlu nañ ko bu baax a parce que ndimbal la euh, ñëpp bokkuñu moyen am na ko mën a fay 10 waaye am na koo xam ne mënu ko fay ñëpp it xamee wuñ ko woon noonu mais ñun moom vraiment ñun yokkuñ daal moom sama moroomu chauffeur yi di leen wax na rek ñun ñëpp ñoo ko bokk. ngir yombal déplacement askan wi ci seen i dëkkuwaay jëriñ bi ñu dénk wàllum transport demoon na ca garde boo maraîcher ngir saytu njëgu transport yi ci wàccaayu tabaski bi. El Hadj Malick Ndiaye génne na itam ci lu toll ci téeméeri bus Dakar dem dikk ngir mën a satisfaire li nga xam ne moo di demande bi. ñoo liggéey ci garage bi ni ki démb ñoo wàccoon ci tali bi baare yoon bi ngir tere rek seen i nattangoo yi dawal oto yu naan war gaynde bañ a amal seen liggéey ndax gis nañ ne ñooñee dañ leen di tere yàpp dañuy nekk ci tali bi di kar seen i client ba ñoom ñi ne ci biir garage bi dañu mën a def seen liggéey comme ni mu waree ñu teewlu ci góor ambooc su lu dul ay bés si tabaski bi regroupement chauffeur yi nekk si gaaru ceer bi si diwaanu Louga taxaw téeméer ngir xeex war gaynde yi ndax dañuy yàqu seenub liggéey ñoom ñi nag daal di bloqué xam ni buntu Louga bi dañoo bëgg auto transport wargani bi kenn doot fayabe wargay ne affaire sàcc la mun la ñàkk xëy na ñu ngi sàcc mais nag fësal ko tam du ko nangu waaw wargay nde moom dañuy yàq liggéey ndax li ñu yàq liggéey ñu ñu safoor safoor si képp ku yor permis tey dund ci oto ñëwal garage nga liggéey fa soo liggéeyee bu ngoonee loo fa war a am nga am ko mais wargay ndey amuñu licence amuñu sañ-sañu daw wargaynde yi nag seen côté ñoom ni jàpp ni chauffeur yi bëgg mënul nekk mais lan moo tax ñoom ñoom yi ñoom ñoo ñëpp doole a ñoo ne la yow mi ah ah bi fii koo fi defal mu bàyyi ko ñëpp am terme transport fii mais dama ne la wargaynde dañ leen a war a jox autorisation ñuy daw di dem di dikk parce que ñoom ay xale la ñu ngi doog a dugg ci àdduna te dañoo yor njaboot waaw te seen oto yi nag moom lañ ñëpp gën a taamu ko seen set place yi li ñu bëgg nag mooy ministre bi mu légaliser oto yi mu dugg. coowal transport bi nag doon loo xam ni bu si autorité yi daal di waxul dina ëppi loxo. des ba tey ci dem beek euh, dikk bi wax euh, ci embouteillage yi nga xamante ni euh, ñu ngi fii ci ndakaaru askan wi di ko dund mu metti loolu ci ñoom naam nguur gi def na ci ay jéego mu mel ni daal dara warul ko lu nag fii ci ndakaaru bëri na ay woto bëri na itam nit te loolu day gàllankoor yi nga xamante ni ñooy dawal seeni woto rawatina ñi nga xamante ni ñooy dawal ay taxi. ñu ko dalee ca corniche ouest bu ndakaaru ba foofee ca école normale supérieure constat benn la yile embouteillage sax dañ leen daal di nemmeeku fépp ci biir capital bi mu nekk lu metti ci chauffeur yi ndax am foo jaar sax doon na lu jafe yenn saay sax faw ñii di tàq der yi taxaw ngir rek mën a organiser li di circulation bi. c'est infernal foo ko natt moom weesu na moom loolu moom mun naa la ko confirmer perte de temps bi. loolee lañ nemmeeku ba foofee ca Grand Dakar fii nag li ko gën a yokk di ñëw bus rapide transit bi mu nekk li nga xamante ne dafa rek xatal yoon yi ko sëkk. BRT bi moo waral embouteillage bi ndax ndax gis nga fi ne nii fii dañ lay aaye nga tourné gauche te fi ne boo rond-point ba ngay wëri te rond-point ba dafa sori. fi ne am na lépp am na mais embouteillage kenn mënut a liggéey ndax embouteillage dafa weesu gàllankoor bu ko mënee weesu kay mënee weesu na ko. ngir rek mucc si le embouteillage sénégalais yu bëri li leen gënal mooy jël cak-cak yi ndax gaaw a yegg fu ñu jëm soo gisee gars yi di gën a utiliser cak-cak yi mais raison pour laquelle parce que circulation bi moo indi loolu embouteillage waaw am na ñu andil jafe-jafe am na ñu andilul jafe-jafe man de ku mel ni man du la andil jafe allah ñu ngi sin bu baax baax ñu bëri nag jàpp ni que li waxal yile embouteillage bokk na si nit ñit ñi bëree si biir ndakaaru te li ko waxal mooy entreprise yu bëri si biir capitale bi lañ leen samp loolu waral ñu daal di woo njiit yi ñu désengorger Dakar. jël beaucoup de ministères beaucoup de direction directions génn ko Dakar bu ko defee ñu mën a féexal dakaar tant que defuñu loolu Dakar chaque jour. embouteillage du fi dañ parce que tout est centralisé à donte ne sax nguur yi jël nañu ay jéego yu am solo ngir xeex yi li embouteillage dem sax ba defar ay autopont ak li ni mel terewul ba tey moo ngay gën di jéggi dayoo ci biir réew mi. Ndeye Daba Oumar Sow ñu wax ci ñi nga xamante ne dañuy toog ci seeni moto ba mu jekk romb nit ñi di këf seeni alal ñu bëri ci askan wi ñu ngi koy dund mu doon loo xamante ne bëgg nañu ñu àndil leen ci ay saafara mel ni nag ci gox yu bëri ci Sénégal dañ ko fi nemmeeku rawatina fii ci Ndakaaru ñi dawal moto cak-cak yi nag ñooñu lañ koy faral di ji ñu di ci wane seen naqara mbirum agression yi mu ngi gën di jéggi dayoo fii ci Sénégal te itam mu ngi jël ay proportion yoo xam ne dafa doy waar situation bi indi na njàqare moo xam ci dakaar wala ci biir réew mi. loolu moom mooy booy yi nii rek booy yi ne ci taawun bi nii rek di bëgg affaire yu buloo quoi. te loo amuñ sens xale yi ndaw leen nañ nañ nañu nañu wut luñ jàpp ñu liggéey dara yóbbu xale yi ndaw leen dañu war a dañu a liggéeyante xaalis dem liggéey defkatu ñaawtee fi nekk dañuy gën di perfectionner anam yi nga xam ne moom la ñuy jëfee astuce nag bu mujj bi nga xam ne moom la ñu yor mooy li ñuy wax vol à l'arraché maanaam këf stratégie bi nag lenn la ay doomu aadama nag ñoo yéeg ci ay moto dal di ciblé ñi nga xam ne dañuy dox ci booru tali bi diwaan bu paas mi rek moo mujj am ma gis benn moto mu këpp benn saaga femme daw moom gars bàyyi ko mu sedd mais mënoon nañ ko mënoon nañ ko topp jàpp ko mais toppuñ ko ñu bàyyi ko noonu mu raw li ñu def ne amul sens ku liggéey ba bëgg a dee ñëw jël xaalisam da ko saaga ba këpp ko yóbbu moom loolu baaxul yàq yaakaar la façon agression yooyu nag bëri na liñ koy nemmeeku ci ville yu mag yi téléphone sac à main wala yeneen i objet daanaka defkatu ñaawteef yi du ñu bàyyi dara diwaan bu paas nii rek moo ci mujj am fii nii gis benn moto mu këpp benn saaga ndawam moom gars yi bàyyi mu sedd mais moo nañ ko mënoon nañ ko topp jàpp ko mais toppuñ ko ñu bàyyi ko noonu mu raw li ñu def ne amul sens ku liggéey ba bëgg a dee ñëw jël xaalisam da koy saaka ba këf ko yóbbu moom loolu baaxul yàq yaakaar la loolu nag indi njàqare ci askan wi ndaxte agression yi dañ koy faral di amal ak violence am na fi nag mais ñun comme bu làmb amee nii da gis làmb day amee Grand Dakar wala mu am Fass bu ñuy romb fii noonu la ñuy def suñu rombee am na kuñ fi këf mu yuuxu fi ay ñeneen ak ñeneen sàcc yi ñoom même jigéen ñi romb sax dañuy dem ba marché dem ci sàcc ñi nga xam ne nag ñoom ñooy dawalkatu moto cak-cak yi leen di faral di tudd ci jëf yu ñaaw yooyu waa ji moom yàgg na ci activité bi wante nag mu ngi weddi bépp tuuma ñun jàpp nañ suñu moto yi suñu moto yi du pour kof quoi boo xoolee ba xool loolu noonu lu ma si gën a wër moto yi koy def ay moto Beverly ay Oxiteer yi ñoo koy def ñun suñu moto yaa ngi nii yóbbu kilaan wàccee rek la ñu xam ñooy fii nii am na yeneen heure sax boo fi ñëwee duñu la nangu yóbbu parce que feetu tabaski nekk na itam jamono boo xam ni dañ ci nemmeeku agression yu bari ñi nga xam ni ñoom ñooy faral di dem ci bërëb yooyu nga xam ne day faral di bari nit wax nañ ni jël nañ bépp matukaay ngir mucc ci defkatu ñaawteef yi. ñuy jeexale ak xibaaru bi ci wax ci ndaje bu njëkk di ab sommet bu ñu jagleel andi jàmm ca réewu Ukraine ñu ne nag waa Russie ñoo ko daal di euh, taxawal. waa Suisse kon ñoo ko daal di taxawal waa Russie nag ñoom ah, teguñ fa tànk ci bataaxala bi ñu daal di génnee ne nañ daal faaw li nga xamante ne moo am ca réew réewu Ukraine ab diir ñu daqal ko teg ci ñu delloo leen seen àq ak yelleef ndax réew la bu moom boppam waa Suisse nag ñoom invité wuñu waa Russie ndax ba ñu tàmbalee wax ci boobu leen ndaje dañ leen ci doon ŋàññi waaye nag am na ay réew mel ni Arabie Saoudite ak euh, Kenya ñoo xamante ni ñoom daal ba ñu yokkatee kàddu ne nañ ñoom waa Russie waroon nañu faa teew ndax lu jig njàkk ñoom ñooy njàkk. ci la jotaay xibaar di leen jaajëfal bu baax ci seen teewla ak seen kóolute ci kanam dinaa fi dikkaat juróom-ñetti waxtu faram fàcce leen xibaar yi ci na nasaraan way leen di dañu seetaan.